aywa li si yéen i kaay njiitu réew Macky yëngal magistrature réew mi ba mboolem yéen kaay yi nu xëyandool di si yënguwaale ubbi l'observateur magistrat yi la xëyee si xëtam wu njëkk ak réunion conseil supérieur de la magistrature ba ñu doon amal ca de la république foofee la indi ay soppite yu bari si kilifa yi jiite justice bi bokk na si Ousmane Diagne mu jële sa parquet général teg fa Ibrahima Bakhoum bokk na si Abdou Karim Diop mi def procureur procureur bu yées bu ndakaaru si ko di wax rek ni yëngu-yëngu yu rëy moo am ci magistrature bi vox populaire ni ñu Amadou Diouf ma newoon procureur de la république jóge na ca parquet ba teere ji cour d'appel bu ndakaaru loolee ginnaaw at ak ñetti weer yu mu fa def l'info si xëtam mu njëkk ni ñuy turée Macky Sall semblé na juridiction bi Walf Quotidien ni ñu juridiction bi moo di magistrature bi salfaañoo la def marum semblé dio Ibrahima Ba ak Karim Diop yéene kaay bi jàpp ni li tax njiitu réew Macky def lu ni mel moo di ngir mën a ak yi xew ci réew mi maanaam pour faire face l'état fera face di cadre du président Macky Sall xëtëb bu njëkk bu la soleil national yéen kaay bi ni ñu démb lu ko wax ci diwaanu Cameroun ga mu gane ji woon xalifa général des Layènes si jamono ji ñuy waajal 143 appelu Seydina Imam Laye Al Mahdi source a nañu mer mu rëy la fa njiitu réew mi moom Macky Sall wone dafa mel ni te dara du la ci fekk du ñu nangu itam kenn di salfaañe réew mi moom njiitu réew mi di wax rek du ñu nangu benn yoon yi yeneen yi xew si yeneen réew yi di xew ci sunum réew di Sénégal moom Macky Sall di wax rek état mënul kër gu nekk mu dugg fa di yar nit ña loolee waree fu way jur yi la si biti nag lu fa waaye def lu defluwut état dina ko jàmmaarloo ak yow les économies ñu démb ba mu demee ca Cambérène wax na si itam leneen l'islam radical nee loolee du ñu bàyyi benn yoon muy am si réew mi l'islam bi jik réew mi boobulee l'islam nag dinañ def suñ kémt lay kàttan ba xat sa damu yéene kaay di las dolli na si ay kàddu njiitu réew mi di wax rek ni boobu la l'islam taraxe yi ñoo ko ŋànk dunu nangu kenn ku koy manqué de fa mu waxee di sa Cambérène la xew tey ji ak suba di appel Seydina Limaamu Laay al Mahdi bés bi le jour moom la xëyee direct news feelu ko si histoire bu rëy bu Seydina Limaamu Laay l'observateur ni ñu du ma ko dàq moom yéenekaay bi xëy dellu si njàngalem Seydina Limaamu Laay nit yàlla bi joxoñ géej mu randu mu daal dëkk ubbi yéenekaay bi MF Fall wuyoo ci turu NDMF moom nag ndaw si ginnaaw ñaari at yu ñu nekk waa ji nag jàpp ni moom coraam si nag da koy trompé ak yeneen góor ba tax mu jëlub otoom daal koy mbëkk tuy jërë ngeen jëf ñu yennu jàmm